Euh, asalaamaaleykum mbokki internet yi ñuy seetaan saa su nekk rek ci jàmm ji info ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar euh, di amati mbégteeg bànneex janowaat ak yéen saa su nekk rek ak seen émission bi nga xamante ni moom moo di euh, buzz de la semaine buzz de la semaine nag soo ko déggee mooy maanaam lépp loo xamante ni rek moo xew ci semaine bi te gën a fës moom lañ leen koy digtal fii si jàmm ji info waaye laata loolu rek may jaajëfal ak ziar sama caméraman bi nga xamante ni wala sax sama cadreur bi nga xamante ni moom moo di Cheikhou amee ci mbokk yi eh, jërë ngeen jëfati ci ànd beeg ñun saa su ne eh, bisimila ñu jukki leen ci li fi jotaroot ci xibaar eh, dañu koy dooree ak Wally Seck bi nga xamante ne nii dañ ko invité woon ca télévision Futurs Médias te ki ko invité woon nag nekk nga xamante ni moom moo di Bouba Ndour ci wata boobu nga xamante ni ci lay defee mission waaye tamit mu indi souligné fa lu baree bari bokk na ci sax t-shirt tam bi nga xamante ni daf ko solonte mu jurub coow waaye bokk na ci tamit nga xamante mooy euh, Baye euh, Souley Baye Souley nag takk da ki nga xamante ni moom moo di euh, moom moo di Mamy Victory daal di koy def nag soxnaam léegi léegi dinañ leen ci dégtal ci Baye Souley lan la doon liggéey ak fan la féete woon ki nga xamante ni moo di Mamy Victory ba tey ñu daal di dem euh, ci actualité ñu daal di dem ci ki nga xamante ni moom moo di euh, Bijou Ngoné xam ngeen ko ci télé télévision boobu nga xamante ni moom moo di 2STV euh, mu fay def émission boobu nga xamante ni moom moo di confrontation li tax nag ñu tudd ci turam dinañ leen ko laal waaye ba tey ñu daal di dem nag fi nga xamante ni moom moo di Marodi daal di fay wax nag ki nga xamante ni moom moo di Marème Dial Marème Dial dañ koo daal di testé positif ci wàllub Covid 19 lépp rek dina leer fii. ba tey tamit euh, ñu daal di dem ci euh, actualité buzz de la semaine yi daal di dem fële nga xamante ni moom moo di euh, Kolda bu ñu demee Kolda nag yaakaar naa ni sax mbokk yi xam ngeen li nga xamante ni moom laa fas yéene wax muy kuréel googu nga xamante ni moom moo di Mbàkke Ruuhu da nekk foofu ca Kolda ñoom it ki nga xamante ni moo jiite woon boobu boobule kuréel dañ koo daal di arrêté ci gendarmerie ba léegi léegi rek ñu dikk ak yéen ci yaatal bi. ànd bi gën ci ànd yi mooy ànd ak borom solution kookee mooy El Hadji Mara Cissé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 ñetteel ba dañ koy daal di dooree ak Wally Seck moom mi nga xamante ni Bouba Ndour daf ko daal di invité ci euh, woto boobu nga xamante ni moom lay def euh, moom lay defee émission di ci invité artistes yi waaye tamit nag sekk nañ fa waxtaan wu yaatu waaye sax ba Wally Seck daal di wax ci li nga xamante ni moom mooy euh, t-shirt bi nga xam ne moom la soloon te mu jurub coow ndax boo diggee sax mi ngi wax ni t-shirt boobu boo xoolee ay gone yu Bouba mooy maanaam gone Petit Gallé sax mosoon nañ koo sol te jurub topp ko daf koo jaaxal ndax t-shirt boobu euh, sol na ko mais xamul woon ni sax loolu euh, marque LGBT la ndax moom nee na sañse daf ko bëgg sañse yëfam la ba saa su gisee lu rafet rek euh, dafay daal di dem jënd ko sol ko waaye ba koy jënd xamul woon ni sax loolu drapeau LGBT la kon nag nit ñi bu solo rek wala nit ñi saa su nekk rek dañuy wax ci wàll Seck waaye kon bàyyi na leen ba sax nag mu ngi doon leeral doon wax ni jëndoon na ci sax ñaari dàll ba daal di ciy jënd ki nga xamante ni moom moo di soxnaam mais dàll sax daf ko mujj mujjee gedd daal di koy may te comme ko may mi ngi ko doon sol te musul jurub coow waaye nag mu jàpp ni nag loolu kon Wally sekk la rek Wally moo nekk nit koo xamante ni nii dañ koy tudd saa su loolu du ci moom bayre bi la kon donc ñu bàyyi xel bu baax a baax ci loolu ba tey ñu daal di dem rek ci wàllu actualité bi dañuy dem ci ki nga xamante ni moom moo di Baye Souley Baye Souley Baye Souley nag nekkoon na fi euh, rappeur waaye tamit nekk na fi tamit peintre yi nga xamante ni euh, ñoom ñooy euh, ne li nga xamante ni moom mooy nekk ci miir yi di maanaam bu lu mënti xew Covid bi sax gis ngeen peinture yooyu ak dessin yi ngi ci mi ngi ci miiru Sénégal yépp kooku nag mooy Baye Souley loolooy liggéeyam euh, takk na ki nga xamante ni nag moom moo di euh, Mami euh, Victory Mami Victory nag nekk na li nga xamante ni moom moo di rappeuse ci fàttali sax Baye moom moom moo nekkoon ménageru Mami Victory kon nag ñu leen di ñaanal heureux ménage di ñaan yàlla suñu borom sëy bi doon sëy bu barkeel ba ñu am ci ay njaboot yu barkeel ba tey rek ci wàllu actualité dañuy daal di dem fële nga xamante ni moo di 2STV dem fekki fa ki nga xamante ni moom moo di Bijou Ngoné euh, Bijou Ngoné nag xàmmee ngeen ko moom mooy def euh, li nga xamante ni mooy euh, confrontation moom nag ci émission boobu nga xamante ni moom lañ ko invité woon ca 2STV doon na fa wax sax ci jaar-jaaram waaye waxtaan fa ak ka nga xamante ni moo ko invité ci lu jëm ci wàllub liggéey bi nga xamante ni ci lay liggéey waaye ba mu ko laajee rek ndax am nga njaboot daf koo dal ni ko ni am naa ñaari doom waaye kenn ki Serigne Saliou Mbacké laa ko tuddee woon dafa sax ñàkk bakkan kanam ko ñu ñaan euh, gone googu mu euh, yeggale euh, ndawam ca àjjanal firdawsi ba tey rek ci wàllu actualité euh, ñu daal di dem euh, fële nga xamante ni moom moo di Marodi euh, daal di dem ci ki nga xamante ni moom moo di Marème Dial Marème Dial nag xàmmee ngeen ko dafa nekk act actrice principal ci série boobu nga xamante ni moom moo di maîtresse d'un homme marié Marème Dial nag dañ koo daal di testé positif ci wàll Covid 19 bi ñu ñaan ñu ñaan bu baax a baax yàlla suñu borom fëgg boppam ba mu dell ci ay yitteem. waaye ba tey tamit rek eh, ci wàllu ba actualité dañuy daal di eh, tukki nag daal di dem ci dëkk boobu nga xamante ni eh, moom moo di Kolda bu ñu demee ba Kolda nag mbokk yi fàttaliku ngeen kuréel boobu nga xamante ni moom moo tudd Mbàkke Ruuxu te nekk fële ca Kolda ci jamono yi ñu nekk nag dañoo jàpp ki nga xamante ni moo jiite boobule kuréel li tax ñu jàpp ko nag bokk na ci li ñu koy toppee mooy maanaam di tëddee ay xale yoo xamante ni seeni at eggagul sax ci fukki at ak juróom maanaam di leen def sox soxna te sax nag bu ñu xoolee takkul gone yooyu euh, li tax nag xibaar bi gën a fës wala gën a siiw ba ñu jàpp ko sax euh, ba fi mu ne nii mi ngi ci loxol gendarmerie li tax nag ñu gën koo jàpp bokk na ci euh, waajuru xale bu jigéen bi nga xamante ni moom la doon sékkal li nga xamante ni moom moo di ay relation sexuelle moom moo daal di dem gendarmerie daal di ko fay nag daal di wax ba tax ci noonu la gendarmerie daal di jógee daal di dem fekk ki nga xamante ni moom moo jiite boobule kuréel muy Mbàkke ci fàttali kooku nga xamante ni dañ koo jàpp moom moo doon woote ni ab yonent la kon ñu mën koo jàppee ab faux yonent kon jamono ji nga xamante ni nii euh, laay waxe ak yéen euh, gendarmerie bu Kolda daf koo daal di euh, teg loxo mbokk yi jërë ngeen jëfal ci ànd bekk ñun saa su nekk rek loolu moo nekkoon buzz de la semaine may jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ni moom mooy Cheikhou Dramé sama cadre jaajafal képp koo xam ne rek saa su nekk rek yaay seetaan buzz de la semaine ay ci rendez-vous ci beneen buzz de la semaine. jàmm